ci yoon bi macha allah gis ngeen dëkk bi gis ngeen fi ñu nu mu sore macha allah gis ngeen ni ñu tiimee dëkk bi hmm? montagne bi ndekete moo gën a kawe ci makka waaw fii la mooy xunt bi gis ngeen Màkka gis ngeen xaari xira moo nekk fe octobre. duwaaw alxuraan. waaw ginnaaw foofu mooy xaari xira allah foofu foofu mu wane noonu mooy xaari xira foofu la alxuraan bi wàcc alxuraan ah. foofu noonu ñu zoom noonu fa lañ déggoon démb ndekete bii moo ko gën a kawe foofu gis nga nu mu sorante gis ngeen màkkaa ngi ne montre bi gis nga ko dafa sori macha allah. waaw montre baa ngi noonu màkk foofu la ne kaaba gi waaw gis ngeen waaye rasul jaral na ma ko <clears throat> nee naa la sama bakkan bi boo ma laajoon ma jox la ko ba tey ñu ngi ci tukki bi <clears throat> ñoo ngi dox di dem macha allah ànd ak taalibe yi mule mule yi allah da leen commenter di zem di ndax lii lu jara yaatal la ndax ngëneel yi ak ciyaaba yi macha allah ba tey ñu ngi suñu tukki bi macha allah ba tey ñu ngi ci tukki bi ba tey ñu ngi si tukki bi ba léegi ñu egsi ba ñu ngi ci tukki salaama macha allah qudrat allah qudrat allah macha allah allahu akbar macha allah léegi ñu agsi macha allahu borom beeke yi ñëpp dañuy ñëw fii sax mhm. alhamdulillah ci borom bi amul morom allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam fii la ñëwoon ci xunt bi mun nañ ne wax ne sax du làqu ndax suñu borom bu ko neexoon mu ne ko bul bul bul dem làqu ji waaye li yëpp day njàngale day wane ne pour ñun pour ñun ñii di ñëw jafe-jafe yi ñu ne mën a am ak coono yi pour ñu xam ne yonent bi waaw moo ñu ko njëkk maanaam yàlla daf ñuy jàngal rek ci yonent bi yonent bi macha allah. daf ñuy wan moo tax coono yëpp di am ndax suñu borom mën na ko ne foofu nga toog dara du wokk dara dula xuri mais bëgg ñu jariñ bëgg ñu jariñu <clears throat> moo tax bëgg ñu jariñu moo tax bëgg ñu jariñu moo tax gën a yokk moo tax alaikum. macha allah macha allah maa ngi nii di dem ndeysaan di tàggatoo kaaba yi tàggatoo bu dul tàggatoo macha allah maa ngi dem di maa ngi ñëwaat macha allah maa ngi nii jóge suma hôtel deux heures macha allah du matin doxantu nii dem tàggatoo kaaba macha allah dem tàggu ko ñaanaat macha allah ñaan suñu borom ne ko maa ngi dem maa ngi ñëwaat ci sa kër gi macha allah démb ñooy woon ci bagaas yi ñu woon préparé jënd ay bagage jënd nañ valeur de deux million macha allah ci bagaas <coughs> sant yàlla bu baax julli ci yonent yàlla xanaa salaam salaam yokkaat naa sax ndax démb laa waroon ñibbi démb laa waroon dem Medina waaye dama yokkaat fii ci Màkka yokkaat macha allah benn fan sant borom bi julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gën di mbindeef suñu yaakaaru tey ak vraiment sant nañ yàlla bu baax ñëw nañ fii lépp lu ñu waroon ci jaamu suñu borom def nañ ko amuñu nelaw macha allah guddi ak bëccëg ñoo ngi fii ci kaaba gi suñu dalloo ba dallu macha allah deux heures de temps trois heures de temps macha allah sant yàlla bu baax a baax dem nañu aussi fu alxuraan wàcc montagne bi yëg nañ fa dem nañ tamit macha allah fi nga xamante ne foofu la xunt bi nekk fu yonente bi sutura woon dem nañ ba foofu hmm, macha allah dem nañ kër yonente yàlla xam ne salaam ñu ngi santaat bu baax a baax vraiment ñu ngi nii hôtel bi ak suma kaaba oh, kii suma hôtel ak kaaba gi zéro mètre la santaat borom bi soo teelul dem doo <clears throat> doo mun a jege parce que tellement mbooloo mi day fees teel la moo tax waaw ndax teel a dem bi ngay mën a teel a ngay mën a jege kaaba bi bu baax a baax moo tax dem nii di waajal di tàggatoo ak kaaba yi macha allah tàggoo bu dul tàggatoo le xalif général de jinne le roi médecine traditionnelle le king of the king yàlla nangul ñu lépp lu ñu fi ñaan te nangu na ko sax te won nañu ay firnde yu bari incha allah santaat borom bi bu baax yàlla defal ñu jàmm ak tawféex ndax fii moom macha allah bërëb bu rëy la bërëb ñaanukaay la bërëbu jaamukaay suñu borom la waaw yàlla nag am na ñi nga xamante ne macha allah du leen refusé mu lu mu leen ñaan ñu may leen ko gannaaw ñëwuñu woon fii ñoo ngi Sénégal di ñaan suñu borom diñ jafal rawatina nag ba ñu ñëwee fii ci këram gi ci këram gu mag gi. moom mi nga xamante ne moo ñu woo fii ci këram bi nee na ñaan leen ma loo leen ma ñaan ma may leen loo ma ñaan ma defal leen kon nag ñoo ngi santaat borom bi bu baax waaw di julli ci yonent yàlla Muhammad salaam salaam xamante ne moo ñu suñu ndey gënal suñu baay gënal ñu lépp lu ñu am ci àdduna bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko gënal yonente bi yaa ma gënal lépp loolu dafa leer wax waxaat nag macha allah du bëri wax la xalif général de jinne le roi médecine traditionnel ndeysaan damay ñibbi nii rek waaye waaye dinaa ñëw incha allah du fi gëj ñaan naa suñu borom daal sax juróom benn weer incha allah suñu borom may ñu ñëw fi ziar ñaan macha allah alhamdulillah partout dans le monde ñu ñi fu ne la ñuy jóge ci àdduna bi di ñëw fii ci kaaba gi ci xaram bi macha allah ana yàlla moo tane le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde le roi des jinne maa ngi ñëw fii di tàggatoo ak kaaba gi tàggootoo bu dul tàggatoo allah alhamdulillah incha allah xeet gu ne moo fii ñëw ndeysaan xeet gu ne mooy ñëw fii jaamu yàlla partout dans le nit ku ñuul nit ku weex ah partout ñëppay ñëw macha allah ñëppay ñëw si woote suñu borom bi ñëppay ñëw utu uy si woote gi macha allah ñëppay ñëw uy si woote bi

macha allah jënd naa ñaari walis jëndaat valeur de un million macha allah valeur de deux millions franc CFA ay bagages. bagages yi ñu ci walis Thank you. any conseil దగ్గర Vas-y, sonne ça, sonne ça. Tu s'en sers, ouais. C'est mon bagage, là. yaa ngi noonu parce yi ma jëndoon sànq du original. macha allah wan ci lii. yi ma jëndoon sànq ah? ndekete du original. parce que dama ko yóbbu ci jumaa ji ñu xool ñu ne original. léegi ma ñëwaat nag jëndaat yeneen. waaw mu changé ma ko parce que dafa am yi nga xamante ne original la am yu nekkul original. maa ngi ànd ak euh, xale bi moom dafa maa gis rek langal ma ko ñi ci lañ nekk si jumaa ja macha allah ñoom ñoo ma doon jàppale. Euh, original. original brother original. Euh, Madina waay comme ça. original bi dafa dafay kii. original xaaral original bi gis nga ko macha allah. ba tey maa ngi waat fii ci kaamil yi sànq kaamil yi ma jëndoon yi du original moom la ñu wax léegi nag yi ñooy original yi mënoon naa jënd rek dem teg ko foofu ndeysaan waaye gis nga suñu borom jënd li may jënd kaamil gi ñor na ko ñor na rasulullah salaa salaam loolu moo waral macha allah ngeen gis ne ba tey macha allah nga yii laa jëndoon sànq mais yii du original yii ay pirate la moo tax ma dello siwaat ko yii pirate ay pirate la moo tax ma dellu siwaat ko yii ay pirate la yu original yi ñoo nekk noonu xale bi moom daf ma gis ak langal ma ko macha allah bëggal ma boppam هذا هذا هذا xale bi moom dafa gis langal ma ko mu ne ma naa ko may kaamil moom waa waa dëkk ci dëkk bi la waa Saudi Arabia la kon nag ma delluwaat lii tamit baax na ci kon nag changé waat nañ kaamil yi parce que yii du original. nee na l'original ah. original yaa ngi yi am nañ ci seize kaamil baax na sànq trente trente kii trente six. macha allah ah. ok ok no problème kon changé nañ yii du original. Middle original. What's up? Why oh, No problem after? no problem. kaamil yi ma jëndoon sànq du original njogaan la falsa la quoi nag original yaa ngi nii mooy original yi